Chérif Aïssatou di waxtaanee nag euh, koppar yi nga xam ne dugaloon nañ ko ci plan décennal bi 750 milliards mu aju ci mbënn mi. Mhm, muy mbënn mi comme moom moo fi actualité boobu léegi gis man Sénégal dëkk bi rembat na démb président de la République def na benn déclaration annoncé 10 milliards ñett ya mun a koo jaarale rek ci téléphone yi ak yu ni mel ngir sinistre yi mën cee jot yeneen juróom-ñaari ñu ne dañ koy jëndee matériel. mu mel ni kon koppar la bu ñëw doole ci li nga xamante moom la fi nekkoon ay sotu ngir xeex mban mi waaw euh, Chérif ginnaaw moom la nuyoo nuyoo euh, xale bi nuyu tamit sunu euh, <laughs> invité bi damay commencer d'abord par rendre hommage à madame Fatou Daniel Diagne ma xamoon ko bu baax mu soppoon ma lool ñu Sénégal nag ñàkk nañu une grande dame de de de valeur. Euh, ku xarañ macha allah ku bari xam-xam. Euh, euh, bari bari valeur. donc ñuy ñuy ñuy masawu njabootam. di masawu bu baax a baax ñi ko jot xam ndax. Euh, yombul woon xam na parce que euh, elle n'était pas très politique mm -hmm. mais c'est une très grande dame ouais. que nous venons de perdre et vraiment je m'incline euh, devant devant sa mémoire donc yàlla na ko yàlla yërëm teeru ko ci àddina àddina fi daa soy donc Chérif bala ma commencé fa parce que foofu <laughs> commencé si ci président Macky léegi sax sama doom bàjjan laa koy woowee <laughs> damaa commencé bari ay doom bàjjan ci réew mi <laughs> ndax xam Euh, dañuy def euh, faati provocation euh, provocation mooy ñun ñi nga xam ne Pikine lañu dëkk màggee fa yaroo fa xam nañu dëgg-dëgg lan mooy mbënd nuy euh, xaar nag ñu doon xaar ci euh, président Macky Sall au moins euh, benn ak ñi ma àndal benn décence bi ak benn benn respons sens de responsabilité boo xam ne diggante nit ak nit rek président Macky Sall bala maa ñëw ci communication désastreuse boo xam ne boobu la ñu gis boobu ba léegi ñëpp ñaawlu nañ ko defe naa monde entier ñaawlu nañu le fait que euh, bës bi nga xam ne ci la euh, réewam euh, ndox mi presque commencé ko emporter mu préféré dem togg ci si ay sommet CEDEAO loo xam ne loolu nit dañ koy ñaawlu ba tey la ko jiitu nag wax naa fii ne ba fi corona duggee 6 mois ba léegi kenn gisu ko mu dem seeti ji kenn hôpital tegu tegu fa tànk kon xam nga kon buñ seesuwul ñu daanu ci ñu mën ni bu lor kooku ba tey Euh, mun nga ko ko baal euh, bala maa ñëw ci président Macky Sall damay njëkkee euh, seen communication. ndax yëf yi da ngay dégg olof di wax naan. dompat sax ci sot la bokk. wax ju neex sarax la. massa baatu massa. dafa am solo dafa am solo. du nag yëf yi xaalis bi dinero bi ñëpp ko bëgga ah. Mm-hmm. waaye xaalis mënut a régler lépp. li massa mën a régler. ak nga euh, euh, nekk si jafe-jafe. gis sa dëkkandoo geesu gis sa dëkkandoo. mu taxaw rek. geesu gis sa kilifa mu ñoo taxaw. geesu gis ki nga sànni sa carte mu ñoo taxaw loolu rek. présence boobu rek. dafa gën tous les discours du monde gën la l'argent du monde. baatu massa bu sincère dafa neex. Euh, man président Macky Sall la mu def. communication bu bu guddi ba bettuma ndax dafa annoncé woon couleur bi kii ano ki xëy annoncé léegi les couleurs ak yooyu kii def avant première yi Boun Abdallah la xëy na suba dem soleil dafa benn benn interview boo xam ne wax dëgg fa yàlla interview boobu dafa war a dugg ci anaalu pire interview du monde euh, ku ne xam ne ne Abdou Mbaye lay tontu. Mhm. ba mu demee foofu dañu euh, sol ay chiffres yoo xam ne est ce que ñun actuellement bilan léegi nga war a def bilan bilan ba nga war a def yàgg na mais li ma gën a métti mooy la mu commencé discours ba moom la président Macky Sall euh, presque euh, moom la RTS euh, feelu balaa président Macky Sall di wax. mooy jiñ ko climat bi dégg nga ba pare ñun ñu waaw ba pare ba mu ko jiinee climat ba pare fàtte na ñun am nañ juróom benn néew ñu tëdd ak seen i mbokk. ak ñoo xam ne ba tey ñu ngi pacax pacax si ndox mi ñoo xam ne ñu ngi faram ci mbedd mi amuñu fi ñu te seen c'est-à-dire seen vie hmm. moo yàqu. basculé carrément. léegi toi tu viens euh, euh, sañ sa ba jekk. Hmm. ak nekk sa ay bagages yu baax ñëw dugg ñu ubbil la euh, soleil national nga naan waaw xool leen la xew ñun nañ sant yàlla xool leen la xew Chine. xoolal la xew Corée xoolal la xew kee climat bi la li waroon daanu ñetti weer moo daan ci benn bés nit ñi tam lañu yëpp pourquoi ñun ñu ñuy jiite. amuñu décence su yërëm ñu sax tuuti. fàtte ne fàttaliku ne ñun ay nit la ñu. ñu ne ñu pare ci loolu ba mu ba mu waxee ay waxam yooyu te wax fa l' essentiel l' essentiel mooy. man damay bëgg ko euh, baat ak tontu. Abdou Mbaye euh, euh, nga xam ne on peut tout lui reprocher sauf mu te man dégg guma ko mu mu génneel fi loo xam ne ñëpp dañ taf seen jëm ne pourquoi mu génneel fi lii. moo nekkoon premier ministre. ba ñu lancé programme bi Sonal bi mu wax ci loo xam ne boobu ba léegi ma damaa déggul kenn koo xam ne indi na ci ay leer te ñun ay leeral lañu soxla nee na euh, euh, programme ba dañ ko arrêté ba mu fa jógee lañ ko arrêté totalement waaw loolu ñun lu ñu doon xaar ci bun Abdallah comme moom la ñu yónni moom mooy mooy mooy def sa al bi mais na ñëw nañu na commencé ci mu Mbaye fu mu commencé fi mu daanelee. 750 millions plus de 750 et quelques milliards la. Mhm. na ne ah euh, Abdou Mbaye dafa affaire bi dafa arrêté fii la arrêté lu tax mu arrêté lii la la ca des foo mu dugg. ah Macky Sall pour ñu. loolu xam nga loolu cinéma la xam nga <laughs> xam nga président Macky Sall bala maa dégg xam nga ñoom dañu am ay relais yoo xam ne ci média yi day waxaat ñu naan wii euh, en colère tape du poing sur la table mais loolu cinéma boobu ñun kan la yëngal kan la yëngal ñun loolu ñun c'est pas ce dont on a besoin. ba mu wooyee bun Abdallah ba mu waxee yëpp sauf l'essentiel mooy xaar 750 milliards boobu fii dugg ak ni lu tax ñu arrêté ko waxu ko guddi gi euh, boo xam ne nag man dafa ma metti parce que man damay wax tout le temps ñun sa métier laa defuñu ko ci ay caaxaan yeneen métier mi ngi fi woon ñu tànn journalisme Euh, dama xam nga Sénégal dañu ñeme wax ne lii don du ciel la dama am don jànguma ko dama am don comme ku jóg na ma dama di way non man doonuma ko fenn don la don du ciel mais journalisme du don du ciel kooku yow yaa tànn yaa toog nga tànn ne man métier bëri métier bëri fi nga ne man dafa être je veux être ba nga ne da bëgg a nekk journaliste fii mu bëri ay affaires yoo xam ne ku bëgg a nekk journaliste foofu ngay jaar ñii tànn fii ñii tànn fële ñii am na ñoo xam seen kër lañ jógee mais ñooñu dañu am ay talent naturel talent bokkul dara ak ay don du ciel mhm. ndax boo amee talent sa boo tàggatu sa bopp talent ba dafay nekk <laughs> à l'état brut lay nekk du ne yàlla yàlla mosal si lu nekk à l'état brut mhm. kon ñu bu ñu nekkee ay journaliste ngay toog di gis ay journaliste di def yenn am yenn taxawaay bi kooku mënoo lu du am gàcce yan journaliste euh, RTS mooy ndeyu télé yi d'accord ma jaadetaa la. seen ligne éditoriale la tamit. non non mais seen ligne éditoriale la. waaye seen ligne éditoriale boobu waxuñu si propagande. pourquoi ku jaar RTS nekk fa DG mais nga gis àddina àddina di la pour la parce que excès de zèle yu grave yi ñuy def kooku nekkul lu dul mm. euh, euh, euh, toroxal journaliste yi ñu doon ñun ak métier sa sa profession noble la RTS def ni mu def Chérif Euh, man damaa dama toog rek di xaar discours président. Euh, taw xam nga man sax RTS dafa euh, di ko seetaan ndax xam naa maa ngi nuyu sama sama promotionnel ya fa nekk mais wax dëgg fa yàlla tàmmoo di ko seetaan waaw suñu kër ñëpp a ko bokk mais tàmmoo di ko seetaan waaw vraiment mais tàmmoo di ko seetaan donc bu amee lu événement la comme c'est la télé des grands moments gars fa la waxee damay taxaw taal télé seetaan mm. ba taal rek gis benn compilation ay montage ay affaire ñu ñu bind di xool di naan fii août 2020 climat bi fii dëkk bi dëkk dëkk dëkk sàngam di wane ay ay misère ay malheur yeneen dëkk pour xamal ñu ne ñun Sénégal en cest à en résumé daal ñu nañ sant yàlla ba ñu amee juróom-benn moor kese si ñoom kese je mets les guillemets ak euh, ñi nga xam ba tey ñi ngi patax patax ci ñi yëf yi nañ sant yàlla daal mais est-ce que loolu c'est le rôle d'un média d'État même bu dee yow euh, ka jiite il est partisan maire la fii ak fii la bokk assumé na ko muy raas assumé na loolu mais nañ moom wàddkam lu ñu koy wax goxom mooy mooy maire wàkki naan ni mu sat waa goxom lan lañ koy wax parce que nit ñi il faut ñu li ma fii tout le temps ne les gens il faut ko ñu fàttaliku suba day am mm-hmm. bu tey neex ba nga fàttali suba dina am mm-hmm. boo gis nga compte yi reddition des comptes dina am ci nii wala mu am ci nële mm-hmm. munoo àddina di la seetaan parce que yow yaa ngi si benn position nga jël lu doy lu ñëpp bokk RTS radio télévision Sénégal ngay def benn propagande boo xam ne mais bu bu indécente propagande boo xam ne qui n'honore pas la profession ña fa nekk mais c'est des journalistes émérites qui sont là-bas. je très professionnel man je suis moi ma mais sur le feu wóor na ma ne 99 pour cent ña fa nekk. Mm-hmm. seen xol metti na ci bañ taalee télé gis mm-hmm. euh, loolu nga xam nga war a xëy sa dafa dem voilà voilà léegi Aïssatou ñu dem ci euh, koppor bi mm-hmm. euh, ñi ngi koy wax sànq souvent heure bu ñu génnee maa ngi koy wax Chérif Dia sax ma ne ko président bi ba annoncé 10 milliards yi. ñàkkul ni am na xamee ni ñu ngi jubilé ci suuf. du taxaw sax ci milliards yi ba laa. non 750 d'abord euh, euh, euh, Cheikh na dormeur nga. Hmm. donc. <laughs> mais dafa lu temps baa dem temps baa dem. <laughs> yaa ngi njëkk a temps baa dem invité baa ngi xaar. yaa ngi njëkk <laughs> a milliards vite fait mais mais tu raison quand même parce qu'il faut pas faire attendre notre invité. kese mm-hmm. alors 750 euh, milliards yi euh, euh, Fatou mm-hmm. mais mais c'est une bombe bëri na de loolu dafa dafa rëy. dafa fajul dara gars yi ne ana moto pompe ya. ana moto pompe ay seen invité bi ngeen teg sànq mais mooy bu info soir bu démb bu démb bi. mais colonel bi Ba Baara mais li mu wax rek moom déjà il a il a tout dit. Mm-hmm. au moins mais jën nga ay machine ak naan ana machine ya mais ñun tout ce qu'on demande à l'État mooy bala moo nañu lijjanti foofu xaalis bi anamu président Macky Sall discours am euh, nee na 10 milliards la ñëw ak moom ni mu defee discours ba waaye seen président mi seen ginnaaw di loo xam ne vraiment euh, communication catastrophique mais 10 milliards bala ngaa yokk 10 milliards bor du am rakk 750 milliards doo ko lijjanti ba pare mu leeral ne comme li ñëpp xam mooy lii 10 milliards yii dina dem encore enrichir ay multimilliardaires déjà. ñoo xam ne man ay vampire la leen wooyee parce que ils sucent le sang des pauvres sénégalais comme moi qui vivent dans une misère incroyable ñi ñu si ñi ñu si war mooy malheureusement ñi nga xam ne ñu ñoo leen wóolu tànn leen. et ñoo xam seen nekk su ñun parce que 10 milliards boobu mais ku ne xam na ne 10 milliards lan la faj. ñun inondation yooyu yii yow déjà génneel nga programme décennal. 2012 mm-hmm. 2022 on est ñu ngi si 2020. presque deux ans ci ginnaaw deux ans ci ginnaaw nga ni les sept nga ni les réalisé guñu ko loolu leeraloo ko nga jëlaat encore beneen diem yaa jox ko xaalis boobu fan lay dem nuñ koy pàcc pàcc gis naa am na ay sapeurs pompiers yooyu duñu seen dara il faut encore s'enrichir il faut encore enrichir des des gens ba pare benn benn affaire bu ma metti si président Macky Sall mooy il croit que l'argent règle tout man li ma gën a metti mooy moo dafa defee ñu Sénégal ñun da vraiment ñu ñu ñu ñu ñu ngi si degré zéro de la misère c'est-à-dire ñu ni ñu problème lekk xam naa dafa defe ne ñun loolu la ñu am oui jël naa si 3 milliards boo xam ne leen nag moo ma neex ci li mu wax nag mooy enfin il se rend que fii am na ay ay ay yu mel ne mu nga toog si kër jot sa xaalis. bu ko bu ko teeloon xam. ci ba muy jëm euh, ci ci ci force Covid bi. Mhm. on en serait pas li bëri woon na ci force Covid bi. ñu bëri jotuñu woon est-ce que tamit mais bii ça va être pire bii ça va être pire parce que xam nga force Covid bi foofu dafa amoon ñoo xam ne jàpp ne seen euh, koom dafa dafa dafa lompoñ parce que seen activité dafa taxaw bii nag c'est des vies qui sont dans l'eau mhm. nit ñi 3 euh, milliards nga ne moom nga jël jox ko combien de 14 régions du Sénégal. Hmm. qui pataugent. Hmm. qui ont perdu leur vie leur maison toute leur vie c'est-à-dire toute leur vie ñu perdre ko. Hmm. nga ne benn 3 milliards après doon un du àgg. c'est clair et net du àgg. deux bu àggee ku ne ay 20 milliards wala 25 mille. mais loolu lan nga faj. ba pare beneen nga xam ne foofu laa bëgg a daanelee Fatou. Ah, ma ko mayee mooy. Euh, je n'aime pas le dire parce que man euh, jigéen laa. te euh, je, je, je n'aime pas euh, avant j'aimais bien le le, le terme féminin euh, euh féministe. Mm -hmm. mais après comme yaa dafa dem dafa xaw a dugal fourre-tout. Mhm. te man bu xawee fourre-tout weer dama ci génn nànk. Mhm. mais euh, je n'aime pas parler des femmes parce que je suis une femme <coughs> te j'estime que ñun en tant que jigéen. on est très malmené euh, par euh, monsieur les <laughs> les hommes qui ne nous pardonnent rien am na nga xam ne moom bu ko Chérif waxoon ça passe mais Ajib Dia Fall moo ko jigéen la ça ne passe pas yooyu euh, donc am nañu méttital yu bëri yoo xam ne dañ teg jigéen et moi je n'ai pas envie d'en rajouter des tonnes quoi mais des fois euh, donc donc bii dama koy wax vraiment euh, avec un pincement au cœur gënalu ma mais il faut que ma wax parce que on est dans le cadre chronique je dis ce que Euh, sama mag la <laughs> dama naa je bien elle m'aimait bien avant mais. alors ah plus maintenant. <laughs> non parce que xam naa yi may wax fii seen seen info ni ma tamit tamit mi ngi ma yàqalaale au passage <laughs> donc ma euh, euh, madame Faye Sall c'est une grande dame une brave dame tout ce qu'on veut mais wax dëgg fa yàlla il faut mu arrêter wala ñi koy xelal mu arrêté ñu arrêté. Mm-hmm. Euh, euh, affaire bu démb bi moom honnêtement fii la ma des. premièrement par ordre de préséance du moom moo war a dem. moo moo warul jiitu. bien que ku ne xam ne sax àggul carrément ci xolu yëf ya mais warul jiitu président de la République mais ñu ma Madame Faye Sall quand même Macky Sall lañ jëkkëram lañu fal. moom xam na bëgg naa booy jàppale si ñu ne ay borom jëkkër la faate mm-hmm. sa jëkkër boobu lu pourquoi ñu ni derrière chaque grand homme yaa une grande dame mm-hmm. mais sa euh, da nga dégg aussi olof naan nit doo ko yedd ci pénc mm-hmm. mais sa jëkkër boo ko bëggee jàppale dëgg doo def doo poser ay actes yoo xam daf koy affaiblir mooy dañ ñaan dafa mel comme yow yaay yor doole bi même doole boo ko yoree sax mm-hmm. même yow bu fekkente yow yaay euh, euh, sa jëkkër yaay kaani xeeñam mm-hmm. loo ko déy mu def ko mm-hmm. mais doo ñëw ne fàng ci mbedd bi di wane carrément ne man man man naa sama kaani xeeñ jëkkër nañu wante parce que ñun tamit ay africain lañu ay africain lañ dafa am nañu sa jëkkër boo amee ci moom pouvoir sax mais suuq nga xay wane bu dee yow naan dëgg nga mais doo ne fang tu ne gagnes rien en a nekk a fang di wane ne. dëgg-dëgg mhm. euh, parce que pourquoi elle c' est d' abord elle qui va là-bas. pourquoi un mhm. deuxièmement. Mhm. faluñu ko. je le répète faluñu ko Macky Sall la ñu far jëkkëram. dafa waroon a xaar ba doon dafa bëgg a jàppale jëkkëram dëggantaan dafa waroon a xaar ba Macky Sall dem ba pare. mu doog a jaar ci ginnaaw def lu muy def. mais li muy def nag. surtout mooy. man damaa sonn ci ma leen fay wax elle est gentille elle est humble elle modeste elle kii dafa ñu bëgg daf ñu nangam démb euh, modeste bëgg d'accord naa mais tout ce que tu fais woo caméra woo àddina mërgër képp mhm. dafa too tu n'es plus humble mhm. tu n'es plus modeste tu es dans le ngistal tu es dans le voyez-moi tu es dans le voyeurisme et tu es surtout surtout en train de te une ball dans le pied parce que nag ñun dañu am dañu bëgg sutura te jigéen da ngay suturaal sa bopp beneen bi euh, mais foofu laa jeexale Fatou j'abuse mais mais je dis euh, pour le cas de de Marème Faye na na na na moytu mm-hmm. ñi koy xelal dañ koy dañ koy dañ dañ koy yàqal mm-hmm. dañ koy yàq démb xoolal fi mu fi mu nekk ñu ngi wax ay mesures bari ñu ngi wax ay nangam yow nit ñaa ngi feebar mm-hmm. nekk si ay jafe-jafe tu vas là-bas mm-hmm. créer fa benn émeute boo xam ne mm-hmm. euh, jolo ko politiser affaire bi pourquoi à quelle fin Marième Faye Sall na arrêté di caméra yeeg micro yi nay def te yàlla tax def te yàlla tax mooy nga masque wu làqatu dem def bu sa bu sa jëkkër jógee fii nag ñu doog a xam lan nga doon def. très bien voilà je te remercie. et je me remercie. a <laughs> invité bi xoolal invité baa ngi ree ah bon kii mooy Aïssatou Diop Fall sunu gan léegi léegi euh, bu ñu jógee ci jàngat bi dañuy dalal.